macha am na forte délégation bi fi ñëw euh, dañoo ñëw pour euh, jàppale ñi nga xamante ne caabi di leen féete ginnaaw n'est-ce pas est-ce que yéen affaire bi pare ngeen pour continuer ko chaque at. waaw incha allah macha allah pare nañ pour continuer ko ndax Adja Ngoné sunu sër bu baax la daal waaw. koy waxee allo Dakar ba tax na Mama Diarra bés bi rëy na lool ma kontaan si lool Mame Diarra bés bi. ban nan ngeen def ba xalaat bés bi pour jàppale ñi nga xamante ne ah, ñi ngi si prison yi. waaw Yankuba loolu dama ci sawar a wax DJ Gas ndax ñun ay jigéen lañu les femmes leaders dañuy toog di yëngatu si social di dajale di dimbalante suñu biir mais dañoo toog xam na ne suñu mbokk yaa ngi campénal ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi foofu amuñu kenn leen jàppale. dafa fekk loxol borom est-ce que yéen def ngeen ba pare avant ngeen avant ñuy indi seen ndimbal yéen def ngeen seen ndimbal. waaw ñun def nañu ndax valeur 3 millions dajale nañ ko ci ay potol saabu service serviette hygiénique yëpp dajale ko pour ñoom ñun dañoo dajale ba pare doogu ut yeneen ndimbal mu dem foofu campagne léegi man gis naa fi ay don gars indi nañ fi lépp. est-ce que li ngeen di indi nii kañ ngeen ko yóbbu kañ ngeen ko yóbbu ci bi. waaw ñu ngi xool xam naa le premier début de l'année bi ñu dajale ko suba tey le 28 dañuy bàyyi le premier incha allah ñu dajale ko yóbbu ko camp pénal. donc waa Dakar TV ñun ñoo ko gisandoo xanaa ñëw nañ fi tey dajale nañu affaire yëpp yi ñun gis nañ ko xaalis bi gis nañ ko incha allah dañoo pare pour yóbbul ko ñi nga xamante ne caabi di féete ginnaaw jërëjëf waa Allo Dakar. di gërëm sama caméraman bi mu baax a baax di ziar sama caméraman bi jërëjëf. askanu Sénégal su ma nee asalaamaaleykum ngeen ma maaleykum salaam ki tax nga tax te musul taxaw na maa tax boo dee gor nekk yaa tax kon mama Adja Ngone Fall moo waral bés bi maa Adja Ngone Fall moo tax lii am tey kon tey ma dalal ko ma Adja Ngone maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax a maa ngi leen di delloo ziar dinaa ba ma sant yàlla julli ci sang sang yi. Seydina Mouhamad maa ngi leen di delloo ziar yéen ñëpp euh, presse bi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu suñu naataangoo yi ak ñi ñu wuy si ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar. ok maman Adja Ngoné Tall ma bëggoon xam objectif bu bés bi tey lan la. ah bés bi tey li ko waral mooy ay jigéen ñu dajaloo pendant toute na ne di def solidarité entre ñoom at bi di jeex nag ñu ne solidarité bi nañ ci xalaat nag sunu mbokk jigéen yi nga xam ne ñoo nekk camp ñooñu la ñu jóg nag tey bëgg leen a jàppale dajale sunuy don wax dëgg yàlla ba mu wat une valeur de 3 millions 500 ñu jënd ko nag teg ko daal di koy wax seen leen koy yóbbul ci 1er janvier bi ñu départandoo ko ak ñoom at bi te yàlla génne leen fa ñu nekk loolu mooy sunu ko tey. ndimbal na fa fekk loxol borom ñom les femmes amazones moom mooy présidente des femmes amazones dajale nañu presque 3 millions teg nañ ko sur table loolu la ñuy commencé loolu la ñuy démarré ba tax na euh, est-ce que gars yi wuyusi nañ leen woote bi ngeen woote wuyusi nañ leen. waaw wuyusi nañu ne wax dëgg yàlla euh, monsieur le maire Babacar Mbengue wuyusi nañu marraine yi ñu amoon it dëgg-dëgg ñëw nañu comme Adja Adidi Mbengue ñëw na euh, Cheikh de Thielaw Seck caisse de dépôt et de consignation SG ñëw na ak jabaram ak it Adja Malado Saw Londres. ñëw na ak di euh, euh, Didi Mbengue ca Hann bel ñëw na wax dëgg yàlla daal ñi ñëw bari nañu mënuñu fi nekk di leen lim ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañu monsieur le maire Alioune Sall ñu koy gërëm di ko sant euh, moom it ndawam gis nañ ko ñëw na taxawuñu jàpp ñu jàppale ñu ndax moom mooy sunu guide politique waaye lii nag politique taxu koo jóg dañu jóg ngir def social ñu di ko gërëmaat di ko santaat di ko ñaanal yàlla jàmm sunu càmmeñ loolu yan ko yàlla yëkkati ca kanam Ah, madame la présidente l'année prépare l'année prochaine l'année prochaine il nga grand théâtre L'année prochaine grand théâtre parce que nous nous sommes 250 euh, responsables 240 au niveau national Nous ñooñu grand théâtre Euh, télé bi nga xamante ne dafa jógee ba goxam ñoo fekk si la fii si Liberté 6 extension macha allah ñëpp gis nañ ko léegi euh, mu ngi commencé def buzz bu baax si site national la bokk lan ngay wax ñooñu. Euh, di gërëm Allo Dakar bu baax a baax a baax muy monsieur Faty Euh, jàpp na ci social bi bu wér a wér ndax amul dara lu ñu ko bëgg yëkkati jox mu ni déedéet da ngeen di def social ay jigéen ngeen amu leen doole bàyyi leen man ma jàppale leen ci nii ma mën pour ku ko dégg mën leen a ñëw jàppale leen ñu koy gërëm de passage di ko sant di ko ñaanal yàlla jàmm ñun ay jigéen lañu ñu mu defal ñu teraanga yal na ko yàlla fay teraanga ci at mii ñuy dugg barke Cheikhul Khadim di nuyu presse fi teew yëpp waa Sen TV waa Euh, TFM ñi ngi ñii ñi ngi ñëw ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm Abdoul nga xam ne fu ñu taxaw ñun mu taxaw fa mooy sunu géwélu juddu di géwél di gërëm aussi euh, Fara Mbaye di géwél di gërëm aussi DJ DJ Gas aja merci beaucoup ba tax na vraiment euh, ñu ngi nii ak mama Adji Fall je présente des Amazon leaders maa des ziar di sargal ñëpp di allo Dakar ci kaw DJ Gas il est le dans le guichet automatique des animateurs le gap automatique des animateurs merci